Sénégal salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Tiwaawan euh, ginnaaw bi ñu sant yàlla jul ci sangu-sangi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal suñu ay wajur di ñaanal kilifa diine yi nga xam ni comme niñ koy faral di waxee ñoom ñooy les garants de la stabilité sociale Euh, ki ñu ci jiital mooy ki nga xam ni moom la yàlla jiital ci famille wu Cheikh Seydil Hadj Malick di Serigne Babacar Sy Mansour moom buñ ko ñaanalee ziar ko dina ko teg ci loxol képp kuy kilifa diina ci senegal comme ni ngeen ko xamee ñii toog fii moom mooy collectif sama sport sama avenir bu Tivaouane collectif sama sport sama avenir nag dafa ŋànk képp koo xam ni doomu Tivaouane nga wala doomu département bi nga ba pare di yëngu ci sport. bu ko defee kenn ku ne xam na ni fan yi ci ginnaaw am na ay yëngu-yëngu ak ay yitte yu ñu defoon. Euh, bi ñu ree réunion le 14 bii passé defar suñu bureau ca ëllëg sa le 15 la ñu maire woo bureau maire yi pour waxtaan ak képp koo xam ni acteur sportif nga ci Tivaouane par rapport ak euh, stade bi niñ ko bëggee pour mu defaree ko noonu. ci daje boobu ñu daje woon nga xam ni c'était dans le c'était euh, en face de l'opinion nationale ndax presse nationale baa nga fa woon maire daa di jël kàddu daa di wax ni. moom du yem rek rek rek ci ñun li ñu bëggoon muy gën a nekkoon farata ci ñun moom mooy poser gazon synthétique bi waaye dina fi defar beneen tribune bu bees muy ñaari tribune mu wax ni aussi dina fi defaraat dina defaraat encore terrain basket bi ndax Tivaouane dafa am club bu basket pour ñu mën ci di compétir di ci entraîner mu wax aussi ne dina defar encore terrain handball bi ndax kenn ku ne xam na ni Tivaouane dafa am équipe and handball bu am doole bu fi nekk waaye ñoom aussi ñàkk am terrain bu baax moo tax mënuñoo recevoir Tivaouane Thiès la ñuy recevoir Ah, mu waxoon ne aussi liggéey boobu xaalis bi nga xam ni moo ko war a liggéey mi ngi fi ci keesu municipalité bi lay jógee ah, mu waxoon aussi ne délai boobu ñu koy liggéey mi ngi ci ñetti weer lañ koy liggéey ndax bi mu koy wax ñu fàttali ni entrepreneur baa ngi toog ba keroog entrepreneur bi aussi jëloon na kàddu pour wax ci ci kaw loolu la joxe woon délai aussi ne liggéey bi dina tàmbale àllarba bii di ñëw tombé woon ak le 20 léegi nag bu jógee ci loolu ñun ñu waxtaan daan ne ah comme kilifa la te moom moo wax ni liggéey bi dana tàmbalee te bu tàmbalee ak jàmm incha allah képp koo xam ni euh, sportif nga ci Tivaouane di nga ci yëg sa bopp nañ ko may ba boobu ñu xool ba xam léegi nag bi la vingt jotee ñun ñëpp ñu àndaat ñëw ci stade bi euh, gis fi loo xam ne wax dëgg yàlla daf ñoo xaw a bett ndax ñu ñëwee ci sance bu toll noonu gis ñu fi lu dul ñetti charge suuf ak ñetti charge xeer ñun ñëpp ñu nekkoon nag waxtaan jot na jógaat jot na ñu teg ci ab diir bi ñu waxtaanee suñu biir. ñu ne léegi li ñuy def mooy nañu jógaat encore beneen jógin dem waxtaan ak képp koo xam ni sport ñor na ci Tivaouane dem waxtaan ak koo xam ni képp koo xam ni kilifa nga ci Tivaouane tey nga yëngu ci sport ñu waxtaan ak yow fi ñu koy tàmbalee mooy ci municipalité bi comme ñoom ñoo yor liggéey bi seen projet la bu ñu fa jógee dem ci l' inspecteur du sport nga xam ne moom moo ngànk lépp lu sport ci département bi waxtaan ak ñoom bu ñu fa jógee woo ñu ñu war a woo muy club de foot yi muy équipe nawetaan yi muy équipe bu euh, basket bi muy équipe bu football bi muy euh, euh, école de football yi fi ne ñu waxtaan ak ñoom sensibiliser par rapport ak fi liggéey bi toll. bi loolu amee aussi ñun lundi bi passé ñu xëy def loolu bi ñu xëyee dem nañ ci maire yi pour rencontrer. Euh, suñu suñu comment dirais-je euh, secrétaire municipal di Khalifa Gaye ah li ñu jëlee ci moom nag lii la lim ñu njëkk a wax mooy ñu dalal suñu xel te xam projet defaraat stade bi ba mu nekk stade multifonctionnel dafa nekk projet phare bu le maire Demba Diop Sy loolu la ñu njëkk wax mu waxaat ñu ne maire dafa engagé wu pour aménagement ak réfection stade bi ba nekk stade multifonctionnel ah, mu dellu waxaat ñu ni bal tey ci dalal suñu xel mu waxaat ñu ni pour dalal seen xel PTI bi nga xam ni moom la ñu bind pour defar stade bi ñu ngi ko bindoon depuis le mois de mai te àndoon ci ak waa ARD mu waxaat ñu ni entrepreneur bi nga xam ni moom moo ko war a liggéey déjà Tivaouane la bokk te date bi nga xam ni moom la ñu jàppoon pour defar stade bi te ñun bi fi ñëwee date boobu commencé wuñ ko ñëwoon na jour boobu ak équipe waaye dafa tawoon moo tax mu dellu woon ne ba jëmmi jamono ñu doog koo commencé liggéey bi. Euh, bi loolu amé aussi ci sasi mom le secrétaire municipal ci la entrepreneur bi ci suñu kanam dal koy def mais libre entrepreneur bi aussi dafa confirmer li nga xamni mom la wax en tant que secrétaire municipal dal ci tek daan né liguey bi commencé na tay té du arrêté loolu lañu wax dal ci tek aussi ne inshallah dina respecter délai bi ba liguey bi sax mëna am mu egg laata délai wu ñetti wër yoy di mat euh, bi mu waxé aussi daan né nañu bàyyiwaale xel aussi ci période nawet lañ nekk loolu aussi facteur la boo xam ni moom mënu koo contrôler ñun mënuñu koo contrôler te bu fekkee ni aussi day taw xëy na liggéeyu BTP duñ ko mën a def loolu aussi entrepreneur bi wax nañu ko euh, bi entrepreneur bi daaneele Jibi Ndiaye daal di jëlaat parole mooy Khalifa Gaye moom mooy secretaire municipal daal ne wax ni daal comme moom wax nañu lim ñu wax maire waxoon nañu lim ñu wax entrepreneur bi wax na lim li mu wax je pense que jaratul ñuy appesantiru ci problème mu délai ndax limu wax leer na bo liggéey bi xasse ba tambalé dootul taxaw wax na ni aussi xaaliss bi koy liggéey mi ngi fi ci xaaliss municipalité bi la abi wuñ ko yelwani wuñ ko ah bi mu aussi comme wax na du dal xel ñu ñun aussi ñu wax ko li nga xamni mom lañu la xalaat ci limu wax ñun nuyo tagato biñ fa joggé ñu dem euh ki nga xamni mom moy inspecteur du sport mom aussi biñ ko sété ci kilifteef bi nga xam ni moom la yilif sport Tivaouane moo tax ñu seeti ko euh, mu rafetlu suñu démarche bi kontaan ci responsabilité bi ñu ko defee mais aussi mu ñaan ñu ni bu ëllëgee lépp loo xam ne ñu ngi koy yëkkati fas yéene cee def ay yite mu jëm ci sport li ko doon gënal moo ñu ñëw waxtaan ci ak moom échange ci ak moom communiquer ci ak moom. Euh, mu tegaat aussi ñaan ñaan ñu ni euh, bu sañoon ñu may autorité bi période de disgrâce boo xam ne ay fan la. entre temps xate-xate yii ñu nekk ñoom daal di jeex bu ko defee ñun ñu doog a def suñu point de presse waaye nag moom en tant que kilifa ñun collectif sama sport sama avenir xamal ko ni loolee mu ñu ñaanoon kat am na luñ ko ca may ndaxte ñun dañoo façon yéene ne bu ñu seeti jee ñi ñu war a seeti ba noppi dañ fi woote ab AG bu mag wala boog point de presse bu mag a mag woo sportif yi woo Tivaouane yëpp ñu ñëw ñu daje fi ñu def point de presse bii ñuy def tey waaye ginnaaw moom kilifa la te seeti nañ ko ñaan nañu loolu moo tax bi ñu dajawaatee ñu waxtaan ñu ne ah ay la yéwén nañ ko may li mu ñu li mu ñu li mu ñu ñaan mooy ñu def ko benn point de presse bu yem moom mooy waral ngeen gis lii tey mais lu rëy a lañ ko programmé woon a def bu ko defee ah, ci kàddu yi nga xam ni ñun jëloon nañ ko bind ci compte bi nga xam ni moom la ñu yebaloon loolu la ñu jotoon a jëlee ci le secrétaire municipal Khalifa Gaye loolu aussi lañ jëloon jëlee ci euh, suñu kilifa googu nga xam ni moom mooy inspecteur du sport nga xam ne mooy moo ŋànk départ euh, moo ŋànk sportu département bi. bu ko defee ci loolu ñun li ñuy insister rek mooy ñu seedeel Tivaouane yëpp ne collectif sama sport sama avenir politigul politigaanul ñu seedeel Tivaouane yëpp ne. collectif sama sport sama avenir lenn rek moo ko tax a jóg moom mooy stade bii nga xam ne dañ ko war a defar ba mu ñoŋ képp koo xam ni yaa ngi yëngu ci sport ak discipline boo mën di ne nga gis ci sa bopp ba bu ko defee suñu niveau compétiteurs yi suñu niveau athlètes yi mën a jóg ba mën a fekki seen ay nawla yi nekk ci Sénégal loolu rek moo ñu tax a jóg ndax kenn ku ne seetlu na ni sport département Tivaouane tardé na lool ci at yi par rapport ak euh, département yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci région bi par rapport ak dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi loolu képp kot dong rek moo ñu tax a jóg. li ñuy xeex xeexaluñ ko député sangam xeexal xeexaluñ ko coalition sangam xeexal xeexaluñ ko parti sangam mais sportu Tivaouane la ñuy xeexal askanu Tivaouane moo tax ñu jóg. gars yi salaamaaleykum ah, maa ngi nuyu ñëpp. ñu ngi lay fay. maa tudd Souleymane Ba ñu gën maa xam ci pël. Euh, nekk deuxième capitaine lycée Damel bu Tivaouane. waaw bon fu ñu commencé rek mooy. ñu ñu remercier ñëpp suñu grand yi fi nekk ñëpp di remercier tamit sama mbokk joueurs yu ne sama ginnaaw. am na tamit ñeneen ñoo xam ne bëggoon nañoo ñëw mais mënuñoo ndax euh, dañ ne affaire bi dañ koy yemale def ko affaire bu ndaw rek mm-hmm. pour l'instant quoi di xaaraat jëmi jamono ba xam lan lay euh, suñu maire bi di defaat mm-hmm. léegi nag euh, comme par rapport ak ñun ay jour lañ te ñun dañoo soxla terrain boo xam ne o moins dañ ci mën a exprimer wu di ci wane suñu talent mm-hmm. ndax fii soo xoolee presque Tivaouane suñ la gisee nga football cinq ans yoo xam ne seen kanam wala quatre ans rek ñu ne màgget nga mhm. te du màgget mais terrain bi moo neexul a footballee ndax soo xoolee presque ñi nga xamante ne suñu naatangoo leen di fi ñëw di jouer ak ñun loolu la ñuy wax ñun seen terrain dañ fiy ñëw pour wut suñu un point

muy sama sport sama avenir di ci xeex pour maanaam ñu defar suñ terrain bi képp koo xamante ni da ngay yëngatu ci wàllum football maanaam ngay yëngatu ci wàllum sport da nga cee war a ñëw jàpp suñu autorités yi nga xam ne ñoo fi nekk dañuy commencé lii ngir yàlla ñu ngi leen ñaan ñi war ngir yàlla war a ñu àggaleel ñu ko ndax ñu amul leneen lu dul lii tey lii bés Tivaouane moo ciy bénéficié wu ndax tey jii bés bu paree maire bi da ciy bénéficié wu ndax tey jii yow mi soo demoon ba ci bay ñëw fii indi sa équipe di football da loué pour ñu jox la ko pour nga jouer mmh. soo ko soo ko deful doo am Quand ça veut dire que maire bi dina ci bénéficier maire dina ci en plus population Tivaouane dina ci en plus les gens dina des au moins ku ils football la ndax Tivaouane commencé à talent manqué a wax soo xoolee mhm. ñu ñu wër dëkk yu ñu wër ñoom ñoo départemental mhm. trophée C'est mhm. petite catégorie bi a commencé ba a ñu yëm ci kaw petite catégorie championnat Mm-hmm. petite catégorie gëj na fi. Mm-hmm. soo xoolee Damel ñaari match la joué ren. Mm-hmm. junior en tant que junior. nga ñaari match soo xoolee yeneen dëkk yi nañ football pile day huit match. mais loolu mooy suñu problème moo tax léegi ne day jóg. ñoo fekk si ñi nga xam ne ñoo fi des comme ñun ñi nga xam ne ñoo nag loolu nag suñu autorité ñooñu ci a dimbali defaral ñu suñu stade bi nga xam moom lañ am ñun amuñ leneen lu suñu stade man aw ma lu sport man ku gis ci sport la ma gisee amul kenn kuy dox ci mbedd ba gis ma ci ay sabar wala leneen ak leneen mhm. képp ku ma bëgg a nga ñëw fii seetaan ma damel di wala nga ñëw newetaan seetaan ma ndut mhm. loolu la am kon boog ngir yàlla wërës nañ ñu jàppale ndax mhm. sport ci waan mën a dundaat quoi loolu laa amoon pour wax ci kaddu yi kaddu remerciement lay nekk mais su may remercier damay remercier la presse locale d'abord parce que am na ñu fi jiitu woon daan nañ mën a même combat mais yaakaar naa waxukaay bokkoon na seen i jafe-jafe donc ñii ne heure bu ñu leen wooy ñëw si donc ñun suñ suñ doole suñ force ñoom la avant kenn quoi mhm. gars yi ñu ngi bu baax a baax di remercier Tivaouane la population parce que ñoom dañoo porter le combat mhm. liñ naan su pecc liir euh, neexee nday jaay jàpp ca mbagg ya mhm. Tivaouane ñoom ñoon sponsorisé parce que doon ñun nii rek ñoom ñu ñuy xëpp xeewa ñu ñuy xëpp ndox daanaka duñ yegg si fii ñu yegg si malgré xam nañ dañuy doog a démarrer di leen woowaat ñu gën ñoo jàppale di leen woowaat que ni ñun xeexuñ xuloowuñ Tiwaawan moo ñu yitteel di leen woowaat ni leen ñii ay ndaw la ñu juddoo Tiwaawan yaroo fi màggee fi xàmmee fi dëkk bi jox leen lépp lu ñu am ñu toog ni ñun lan lañ war a dëkk bi loolu mooy sunu loolu mooy sababu takku taxaw bii ñu def nii du leneen bëgg Tiwaawan fu ñu tuddee si dëkk yi chaque jour ma wax ni maam Maodo def Tiwaawan ci côté diine bi keneen def ko keneen ak keneen def ko ci benn waar ñun côté sport bi ñu bay ci sunu waar mhm. en sachant que doomu Tiwaawan du yaafuus mhm. en sachant que Tiwaawan musta jël ndaaj ci mhm. benn domaine en sachant que doomu Tiwaawan départ su ko suñ ko ko mayee noo kenn dootu ko téye xam ni doomu Tiwaawan ndawi Tiwaawan c'est des c'est des jeunes conscients ñun toute la jeunesse on est des amis amul frontière nduttu jaaro c'est des amis ku fi jàppoo c'est des amis Tivaouane bokk na dëkk yi gën a ñàkk violence ci côté sport mhm. te man yaakaar naa dëkk buy sport te amul violence soo ko defaree infrastructure yu ci war mhm. non mën nañoo atteindre suñu objectif lii dong moo tax ñuy woote lii dong moo tax ñuy jóg mhm. amul leneen di rebondir si question Cheikhouna parce que biñ demee toog ay kilifa lañ waxal ñun ñu dem tamit seeti leen ay kilifa lañ non seulement mais ay kilifa ñooñ yabal si ñoom li wax yëpp bàyyi nañ ci xel li ñu wax yëpp bàyyi nañ ci xel moo tax tey mu demee ni mhm. ñun on est des personnes responsables duñ def luy taal Tiwaawan duñ def luy yàq duñ def luy taal ab dëkk mhm. ku jóg pour taal Tiwaawan ñun dañuy taal doog a taal Tiwaawan mhm. ñun on est des personnes très responsables comme niñ doon ñu doon recevoir niñ ko nekkee ak ñi ñuy yónni nekk suñ ginnaaw des personnes plus responsables que nous de passage ma leen di remercier ñoom ñi ñu ñooñu ëpp capacité ñooñu ëpp dayoo ñooñu ëpp xam-xam ñooñu ëpp jëmm dem demaguñ fa ñoom chaque instant lu ñu wax man mi ci gën a ndaw man mi ci gën a néew xam-xam ñu def ma coordonnateur teg ma ca bopp ba ñoom dama leen di remercier parce que yi may wax yëpp ñoo ma koy wax dañ ma koy dee ma doog koo waxaat te pourtant mën nañ ko loolu mhm. pour man Tivaouane gu uni pour man ñoom jël seen i intérêt teg ne xam ni Tivaouane dong moom moo soxla moo tax ñu def loolu ñaañ dajaloon lañ ñu wax bañ fa jugee ñëw nañ def visite stade mhm. juba marathon lañ def mhm. biñ visité stade bi gis nañ ñu ngi ràmbale ñu ngi ñu ngi niveler yooyu yëpp c'est bien beau mhm. mais li ma gëm mooy lu toy ni stade bii mhm. du chantier bu kenn nit di nekk mhm. lu toy ni chantier stade Tivaouane du lu benn machine di nekk lu toy ni stade soo koy rambale xanaa balaa ngay teg gazon di nga dind ay poto on a constaté que ni poto yaa ngi fi ba tey ñu leen di ñu leen di woo rek. Mm-hmm. dañoo bëgg ñun ñëpp li ñu naan ay yendukatu xëddeen dañoo war a déggoo balaa ñuy gaañante. Mm-hmm. dañoo bëgg ñu déggoo beneen bi mooy on a constaté que match matériel bi fiy liggéey gu matériel maire Diop si la. Mm-hmm. entrepreneur bi gagné marché bi moom liñ constat biñ def aussi ñun am nañ ay borom xam-xam ñu seen xam-xam màcc ci wàll wi ñun ñoo nekk ni mais ñun balaa ñuy def dara dañu leen indi ñu xool dañu leen di woor laaju leen seen avi du ñu làmbaatu parce que ñu naan ko am kilifa doo gàggantikoo ci mbedd sëñ Abdou moo ko daan wax mhm. foofu lañ ko teg on a constaté que ni matériel Diop si moom moo fi nekk ki fii nekk di leen surveiller ndaw Diop si la mhm. entrepreneur bi yaakaar naa moom suy liggéey si lu toy ne stade trois mois équipe lay indi mhm. fan yi yëpp constaté que ni tawul gisuñ fi équipe benn nit lañ fi gis mais nag comme ni ko ñëpp waxee dañ leen may temps ñun xeexuñ xuloowuñ dañoo bëgg suñu gazon ñu defar ko parce que suñu xol mooy metti suñ génnee mhm. da ngay dem mbuur ñu ni ñi terrain bañ yor comme comme comme comme dara xawma lan ñii wasifa dong lañ xam tegal leen wasifa dóor leen ñu ñibbi lu ma dégg laay wax mhm. dem Thiès ñu ne kaw kaw yi xamul leen gazon leen bal te exact su bal dawee da ngay xam ne ñun ñii dàqu ñoo football mais dañoo am problème mhm. sunu sunu doom yi psychologiquement mentalement dañu leen di atteindre avant le match sunu rakk yi sunu ginnaaw comprendre nga de passage ma leen bu baax a baax mhm. question bi nga posé woon loolu lu may complété si réponse Aziz mhm. mooy ñoom ñi ngi ci liggéey bi mais entrepreneur bi war a liggéey liggéey bi commencé gul mhm. entrepreneur bi war a liggéey liggéey matériel am ñëwagul ndawam ñëwagul amul kenn ku koy représenté loolu daal bëgg naa ñoom ñu xam ne ñun ñu ngi veillé ci loolu beneen fi may tëjee mooy tuyaan gépp loolu lu nit ñi di wax la peut-être nag tontuwuñ kenn mhm. li gars naan olof naan mbott mu ŋoox ŋoox nawet ku ko tont sa tool booy mhm. tontuwuñ kenn parce que ñun li ñuy def nii xaaruñ ci tagg xaaruñ ci xas yàlla seede na ko mhm. xamal luñ ciy xaar bés yàlla na yeex suñ dëddoo ñu ni bi xeexal Tiwaawan jotee mus naa xeex bés jot suñ ñu tegee jàkkee suñ baaxul ñu ni ku nangoo xeexal Tiwaawan ku bëggoon Tiwaawan na ngi yàlla xam ne loolu rek doy na ma texe lii dong moo tax ñuy xeex ñiy tàgg ak ñiy xas lañ yemale yàlla seede kuñ ci mën a ñaanal nag den jël parce que ay ndaw lañ dañoo bëgg di xeexal Tiwaawan cent ans ci kanam mhm. comme niñ defee centenaire Mame Maodo suñuy def centenaire Mame Mansour rek euh, sëñ Babacar deux mille cinquante sept mu mhm. fekk ñu fi mhm. ñu koy xeexal loolu la ñuy ñaan ñun ñëpp ah comprendre nga ñu ngi naan élection yi su jàllee est-ce que est est tant que Tivaouane mu ngi exister tant ñun ñu ngi exister on mm-hmm. va continuer à mener le combat un combat noble nag mm-hmm. parce que doomu Tivaouane combat bu noble lay mener mm-hmm. mais nag acte par acte ñun combat bi ñu mener ça dépend désormais ci ñoom combat bi ñuy mën a ça dépend désormais si ñoom ñu ñu far jox leen ay ndombal tànk yéene leen ko lool. ñun duñ far ñu ba pare di ko faxastal. li def nii koo far ba di ko defal li non yaa koy pousser à ce mu am bilan bu baax. yaa koy pousser à ce comprendre nga mhm. ñun daal ñu ngi nii toog di déglu tant que Tivaouane mu ngi exister élection day jeex mais ñun tant que ñu ngi dund duñ jeex Tivaouane yaakaar naa jeexagul léegi mhm. yàlla nañ fi yàgg ñun ñëpp gën a kon ne di xeexal Tivaouane ak ñi ñuy seetaan ak ñi yéene Tivaouane jàmm ñëpp fi may daanelee mooy remercier ñiy ñëw mhm. parce que ñun tey dañoo woon Tivaouane gépp mhm. ñun ñi ñëw suñu ñëwoon yaa xam naa si digg stade ba lañ koy defee duñ xaj fii mhm. mais ñoom ñëpp dañu leen rappelé waat ñu dañoo wax ak kilifa comme ni ko ay waxee ñu wax ñu végli may leen ñu ñu am luñ doxal ak ñoom mais n'empêche tey leen leen gën a mën a taxawal ñii ñaandaxum lañ dëkk comme ngeen keroog ni mu waa jaalo yëpp ñoom ñu ñëw def maas ay xale yu ndaw sa yaram day daw gën ñoo bëgg combat bi ñoo njëkk si stade bi ñu leen di booy yi tamit ñaan dox bi lañ dëkk bi ñu leen waxee dañoo fomm affaire bi dañ ni ñoom dañuy ñëw mhm. parce que ñoom ñun luñ dugg ñu dugg ci parce que aussi ñoom neenañ nañ dofuñ ñun ñu leen di xeexal ñu toog ci kër bi mhm. ay xale yu ndaw suñu waxee lool yaakaar naa combat bi combat ñëpp la yaakaar naa ñoom seen bopp war nañoo jox exemple ñëpp may remercier seen coach Socé bi leen bàyyi ñu ñëw mhm. di remercier Tivaouane footballkat yi woon a ñëw yëpp xëy ñu tere leen ñu toog kii leen ñu tegu ci ndigal parce dëkku ndigal la di remercier la jeunesse di remercier ñi ma bokkal sama sport sama avenir mhm. ñoom ñi ci ginnaaw les mhm. hommes de l'ombre surtout mhm. je pas citer de nom di juum mais les hommes de l'ombre non ñu ngi fii le combat continue tey lañ commencé benn façon combat la ñuy mëne mooy combat boo xam step by step lay nekk étape par étape ñoom luñ teg ñu teg suñ tegee lu baax ñi ñëw appuyer leen ngeñ wan dafay indi ndox day indi ndékki day def lu ne combat boobu suñu combat la suñ defee lu baax dañu leen woon ñu leen gën a gore fuuf mhm. suñ defee naka su noonu tamit gore di duñ ko xëccoo mhm. ñu duñ dund maa la gën a xaje mhm. parce que Tiwaawan xaj amu fi mais suñ defee naka su dul noonu am na système buñ teg ba pare système boobu ñu teg suñ defee naka su dul noonu dañuy ñëw rek appliquer parce que lépp mettre nañ ko en place di leen ñaan ni daal liñ bëgg mooy Tiwaawan jëm ca kanam encore une fois de plus di woo doom Tiwaawan yëpp di baal àq ñëpp di ñëpp macha